إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jalla wa ala ñu ngi seede ne yàlla rek mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede ne yonentam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong mooy ki yeyoo jàngale ne nii la ñu war a jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin mbokk suñu xutba tey bi mi ngi jëm ci fàttali ana naka la lislaam gise la nga xam ne muy kërug jullit mooy fami jullit naka la war a mel lu jiitu yow jullit gëmal ne suñu boroom nee na ay waay ragal leen yàlla mii seen boroom mi leen bind moom leen yéen ñépp yéen a ngi jóge ci benn bakkan bakkan ba mu bind ca soxnaam sa muy aadama ak hawa mu génn ca góor ñu bari ak jigéen ñu bari mu ne ragal leen yàlla mi nga xam ni ci turam ngeen di laajante ragal leen yàlla ci mbokk gim doxale seen diggante te famille mooy ña nga xam ne dañoo bokk ànd mbokk jullit xamal ne la nga xam ne mooy famille islaam day da ko màggal lool ndax dadul mbir moo xam ne àdduna lay defar déedéet mbokk famille buñ koy sos dañ caa jublu defar diine jiitu ñu defar àdduna dañ koo sos ngir waajal dund gu tedd ci àdduna ak dund gu tedd ci àllaaxira looloo tax lislaam dafay jëkk a soññu yow góor mi sol dal di wuti soxna ngalawaay su jubluwaay bu mu nekk soxna si borom taar bu rafet bi wala borom situation bi wala borom mbokk gi loolu dafa war a nekk secondaire mooy nekk ñaareelu mbir amma priorité la nga war a jiital ci tànn soxna mooy koo xam ne nii day seede nañ ne am na diina ju rafet am na jukko ju rafet lii mooy priorité gannaaw loolu itamit yow soxna si islam day mayu la ngay maye sabab mën ngaa tànn nag koo bëgganteel waaye say waajur ñooy mayee waajur yooyee suñu borom ne leen na ngeen fexe ba seen doom bu leen ko yemele xaru tabaski xaru tabaski bi nga yar ku ëpp lu mu fay kooku nga koy jaay sa doom bu ko xool ci borom alal boo ko dénk bu ko xool ci borom taar wala borom mbokk loolu la nekk secondaire amaa lii priorité ci priorité yi fexeel ba sa doom nga tànnal ko koo xam ne am na diine am na jikko ju rafet lii mbokk mooy njëlbeenu fondement ci sëy islaam ne nañ yombal la nga xam ne mooy can yi laa tukallifu nafsun illa wusaha nit ki du ñëw di bëgg soxna ñu teg ko loo xamee ni nii coono ba mu koy jural heure bu ci xelam demee soxna si dootu ko sax dara waaye gannaaw ba loolu it mu daal di sant ne nañu fexe ba ñaari way dencante yi ku ne na bëgg sa moroom bu leen boole mukk ñaar ñu bëggantewul yéen waajuru ko góor ñi bu leen impose mukk seen doom takkal diw par force yow waajur wu jigéen bu leen impose mukk sa doom demal sëy ak diw fokk seen diggante day am mawaddatan wa rahma muy cofeel ak yërmaande loolu mooy la islam gërëm suñu àndee ci sëy bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne jullit ñi ko dégg ñëpp nañ leen ñaanal yàlla barkeel leen yonent bi daan ñaan te daan sant jullit ñi ñu ñaanal way dencen yi way dencente yi baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fi xayr ewa yàlla yàlla barkeel leen yàlla na yàlla barkeelal leen ay yow soxna si yàlla na yàlla barkeelal la sa borom kër gi yow borom kër gi yàlla na yàlla barkeelal la sa soxna si te boole leen ca la nga xam ne muy aw yiw suñu àndee mu ne yow borom kër yaay war a dépenser la ngay jël di ko sarxe di ko joxe ca daara ja di ko joxe jàkka ja di ko joxe fi sabilillah dërëm bi nga joxe ci njaboot gi ñu aña ko reere ko loolu moo ko ëpp tuyaaba ci yàlla mi ngi noonu loolu lu bari ci borom kër yi tey xamatuñ ko amma la nga xam ne nii mooy xatta ànd bi ngeen di ànd ci jàmmoo la ngeen di nekk di foo akare la ngeen di séq ci kaw lal ba lépp yonente bi alayhi salaam mu ne tuyaaba la la ko yàlla subhanahu wa taala di bindal mbokk gannaaw lii gis nañu ne suñu borom subhanahu wa taala la woowit soxna si na ko sa borom kër gi déggal ko ci yàlla tax boo xisee ba am borom kër moom mooy sa kilifa numéro un islam lim ñaaxaate ci ñu topp ay wayjur kenn xamul nu mu toll waaye yow soxna si xamal ni sa borom kër gi moo war a nekk priorité ci say wayjur lépp loo xame ni nii daf la ko digal ca araamul sa waajur digal la lu safaanoog loolu sa borom kër nga war a topp yonent bi alayhi salaam ne bu mu doon digal kenn na sujuutal moroomam danaa wax jigéen foo dayeg sa jëkkër nañ ko sujuutal amma ñun lislaam duñu sujuutal ku dul yàlla jalla waala mbokk lu tax yàlla tëral lii lépp lu tax jaar-jaar yépp yàlla tëral ko ngir famille bi doon famille boo xam ne famille bu dal la famille jàmm la famille yërëmante ci suñu diggante ba doom yi nga xam ne dañu fay juddoo dañuy fekk benn milieu boo xam ne milieu jàmm la bëggante soppante la loolee mbokk da ngay gis ne loolu mooy la gën a am solo loo xam ne islaam dana ko jublu ci la nga xam ne mooy loole amma tey jii boo xoolee la nga xam ne moom la jaahiliya fekkoon islaam mooy soxna yi ñoo xar yi lañ yeme la woon la nga xamee ne nii mooy xuloo xàccoo ku nekk sa intérêt ngay xool loolu amoon jaahiliya démb daanaka moo am jaahiliya bi ñuy dund tey mooy sëy yoo xam ne lépp c'est basé sur intérêt intérêt na doon ko góor ki na doon ko jigéen ki waaye mbokk du loolu xattaa lislaam te politique am bi nga xamee ne yàlla moo bind ay jaamam te moo leen xam xam na ne ne jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi xam nañ ne góor ñi li ciy dee moo gën a bari liy dee ci jigéen ñi mu tëral ne yow góor mën ngaa takk ñaar ba ñett ba ñeent waaye benn charte la ci yàlla teg mooy in xiftum allah taadilu fa waahida su ngeen demee ba mënu leen a maandu lan mooy maandu mooy mënu leen a jox ku nekk àq ba mu yeyoo nga la waay bu leen ko def boo demee ba mënoo jox ku nekk àq ba mu yeyoo nga la waay bu leen ko def yem leen kon ci benn bi daal di ñaax jigéen ñi nga la waay ab sëy mën naa may jafe-jafe waaye su ngeen ragalee borom kër yi yëg lor leen nga la waay fexe leen yéwénoo ak borom kër yi fexe leen muñu loolu asulhu xayr te wallahi buñ la nettalee histoire suñuy maam ya nga xam ne ñooñu meññ ñun buñ la waxee lañ doon muñ seen sëy ba yàlla mujj leen faa fekkee teraanga da nga naan lii non doomu aadama mënu ko mënu ko mënu ko muñ waaye ñoom dañoo gisoon ne inna allaha la yudiu ajra al muhsinin yàlla du neenal mukk yoonu kuy sellal kuy rafetal lépp loo xam ne yaa ngi koy muñ ca yàlla tax lu mu yàgg-yàgg yàlla dana ko mujj wëlbati ko def ko la nga xam ne nii moom mooy xéewal mbokk ci lii la suñu borom yàlla waxee société bi heure bu ngeen yégee diggante buy bëgg a yàqu nga lawal sol leen seen dàll fa baasu xakaman min ahli wa xakaman min min ahliha yéen waa kër ku góor ki jóg leen yéen waa kër ku jigéen ki jóg leen fexe leen ba yéwénal la nga xame ne ni moom muy seeni diggante loolu la lislaam santaane allahuma islaam néewul ne ab sëy dafa war a sax comme ni ko catholique yi gëmee finir pour le bon ak le pire du tas mukk la wallah islam nan la gis sëy fa imsaakun bi maaruf aw tasrixun bi ihsaan fexe leen ànd ci njëkk ak rafetoo su ngeen demee ba xool fu ne ngeen xool fa xam ne njëkk ak rafetoo boobu munta ànd kon teqalikoo leen teqalikoo bu rafet teqalikoo njëkk bu rafet loolee day tax ba mën na am bu ngeen teqalikoo ku góor ki gisatul soxna si ab diir dana xam fan la ko féete woon soxna si xam fu ko jëkkër ji féete woon bu ñu àndaatee ànd la nga xam ne mooy ci jàmm bu ñu àndaatul it fekk ne jàmmook lislaam nga mi ngi dox seen diggante waaye mbokk nam xam leen ne suñu noon yi duñu seetaan loolu noon ba ca jëkk gën caa màgg mooy seytaan yal na yàlla musal ñu ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dana wër àdduna nee na dëkk bu muy dem ca géej ga lay dal daa di fay teg la nga xam ne mooy ab min baram léegi seytaane yi nekk ci dëkk bi ñëw di ko rendre compte da ngay gis ku ñëw na ko ay kilifa gi man day fexe naa ba diw ak diw ña ngay naan sàngara du ko faale fexe naa ba diw ak diw rey nañ du ko faale amma bu nit ñëwee na ko fexe naa ba teqali diw ak soxnaam mu daal di koy tapp tàppal ne ko yooyu mu yaay waaja gis ngeen loolee mooy seytaane bu nëbbu amma seytaane yi feeñ mbokk mooy occident ak franc-maçon ya nga xam ne nii ñoo leen di xalaatal am na loo xam ne dañ koy tëral mooy li ñuy tuddee description de la famille mooy adduna bi ngir ñu mën leen a tëralal seeni xalaat yañ jàpp ñoom fokk famille yi ñu tas leen fokk xale yi ñu teel leen i libéré ñu indi li ñuy tuddee droit des enfants mooy xale bi amoo droit imposé ko ci dara sa diine ji ngay dund amoo droit imposé ko say doom xale bi bu ko neexee mën a nekk góor bu ko neexee mën a nekk jigéen jigéen la bu ko neexee nekk góor góor la bu ko neexee nekk jigéen yow nu kenn nekkul ci loolu mbokk loolu benn musiba la boo xam ne ñi ngi koy dégg de waaye wolof dañ ne luy raam ci nekk bi la jëm luy raam rek ci nekk bi la jëm tey ñi ngi dund benn jamono boo xam ne nii xale yi tey amatuñu ndey amatuñu bàyyi seen ndey ak seen bàyyi mooy seen portable ñi ngi dund jamono joo xam ne la nga xam ne muy milieu la ko xalaatkat yi doon jëkk le c'est le milieu qui détermine l'existence mooy nit ki place ba mu yaroo fokk mu yaroo jukko ñooñu amatul léegi ci kaw suuf xale yi tey ñi ay africain lañu ñoom ñëpp c'est des occidentaux adduna bi nekk na benn village planétaire loolu nag waajur bi nga xam ne da nga koo xam da ngay xam ne bu doon sunu maam yi dañu waroon a takk seen ndigg ci seen njaboot ñun fukki takkaay la ñu war a am ngir xool bàyyi xel la nga xam ne mooy njaboot googee mbokk xamal ne njaboot islam da koo màggal lool suñu borom subhanahu wa taala daa di tëral ci ne la nga xamee ni ni mooy seen njaboot gi day man maa leen ci defal ay doom maa leen ci defal ay sët xamal ne kaw suuf bépp projet boo fi mën a am amoo réussite bu toll ne am njaboot gu baax wallahi yeneen ci bari salaam nee na doomu aadama bi mun du dee bàyyi gannaaw lu gën doom yu baax yu koy ñaanal islam tëralal ñu ci soo demoon société yu bari doom yu jigéen ñi kenn faaliwu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul kenn kuy am ñetti doom yu jigéen wala ñetti sœur yu jigéen yoo xam ne seen bay daa dem bàyyi koog moom mu yar leen yarub lislaam aar leen ba ñu dugg ci sëy wala ñu dee ci ay loxoom lu dul daan nekk kiiraay ci sawara ñeel ko benn saxaaba jóg na ko ma ñaar nag mu ne ko ma ñaar mu ne ko même ñaar loolee kon mbokk dañuy gis islam nan la jàppee moo ñu bëgg njaboot gi fonk leen góorub jigéen lan la ñuy gën a sàkku ci ñoom ndax ëllëg ci si biir ñu arrivé ci àdduna doon des architectes et des médecins na ma waxe woon ci njëlbeen laay waxe ci loolu mbokk loolu si secondaire na nekk ca ñaari mbir waaye say priorité sa njaboot mooy ni ñuy fexe ba nekk jaamu yàlla yu gëm yàlla duñ bokkaale yàlla duñu faat julli duñu faat koor lii mooy nekk sa priorité des priorités la cay tegu loolu moom mbir la boo xamee ne nii bu amee bu amul yépp du la yàqal dara te it suñu borom dig nañu képp ko ragal yàlla yàlla dana ko may génn waay wërsëgal ko fu mu ko foogewul woon njaboot gi duñu déggal yàlla mukk wéetal yàlla jébbalul yàlla lu dul yàlla dañu leen teral àdduna ak àllaaxira lii di mbir boo xam ne ku nekk ñun da ca war a góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax ay yéen mbokk jullit xam leen ni njaboot dafa nekk benn responsabilité boo xamee ni nii suñu borom yàlla jalla wa ala bu ko neexoon mboole mi jaamam da leen di saxal ci la nga xam ne mooy ak njub waaye dafa nattu ay jaamam heure bu la yàlla dee jox njaboot dana la jox koo xam ne ku laab la léegi nag yow yaay war a góorgóorlu ana fooy jaar ak moom ba teg ko ci yoonu njub suñu borom mu ne ay yéen jullit ñi fexe leen ba seen njaboot du ñu dem sawara waaye fexe leen ba seen bakkan yi du ñu dem sawara loole ba ko yàlla di wax yaa ayyuhal lazina amanu ana kan la ci jublu da cee jublu góor ñi ak jigéen ñi moo la seen looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen daan na laaj li nga doon sàmm benn sàmm ngi ci dëkk bi am ñoo xam ne dañoo jël seeni xar dénk ko ko mu dem sàmmi ko ñooñu dafa war a rendre compte lépp loo xam ne nii jur ga def nañ ko il est responsable naka noonu itamit yow baay ak yaay yonent bi alayhi salaam mu ne ko góor ki sàmm la ci njabootam dañ ko laaj waaye yow soxna si it raaya sàmm nga ci sa njabootu borom kër yowmal qiyaama dañ la taxawal laaj ba loolu loolu moo tax ba ngal la waaye nañu góorgóorlu xam ne réussite mooy réussite allaaxira mooy keroog bañ la taxawalee ci kanamu borom bi jàll waala di xool yow fan nga jaarale sa njaboot suñu borom seede ak i malaakaam ne kii day jubluwaayam ci njabootam mooy njaboot gi doon ay jaami yàlla njaboot gi doon ñu baax ñu jariñ seen société loolee day mbokk da ngay gis ne mooy réussite bi gën a mag ci réussite yi amma boo nee lay ne loolu jëm ci àdduna mbokk yéefiir yi mënatuñu leen a dab ndax yàlla moo bind sunna ci kaw suuf àdduna yàlla faaliwu ko looloo tax la ci ëpp yéefiir yi la ko jagleel lépp lu ñuy puukarewoo fii seeni mbalit la sunu oto yi ñuy puukarewoo ak suñu meuble yi lu ci bari mbalit ci tubaab bi la kon lañu war a rawe tubaab bi lañu leen gën a dëgg dëgg dëgg mooy ngalawaay mooy li dox suñu diggante ak suñu boroom ñu jéem a xool njaboot googee naka lañuy def ba jàngal leen seen diine lu ñu def ba kër gi doon kër goo xam ne day jàngali diine moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne seen doom yooyu nga xam ne majooraguñu ngalawaay ñetti waxtoo ngi nii avant ñuy julli fajar gannaaw tisbaar après ge jàngal leen leen bu ñu dugg mukk ci néegi lu dul ne dañoo fëgg lu tax ndax am na ay mbir yoo xam ne waruñu koo teel a gis amma ña nga xam ne ñooy mag ñi nag ñoom waxtu wu ñuy dugg dañoo war a fëgg mbokk kërug lislaam mooy kër gu jébbalul yàlla boo xam ne dañuy fexe ba bépp wax boo xam ne ay wax yu ñaaw la ña nga xam ne ñooy kilifa yi fexe ba loolu du fa am am nañ suñuy maam yoo xam ne nii ñoom lañ daan dundalool fii seen kër xaqataay sax dañ ko fa daan tere xaqataay ci kaw sax dañ ko fa daan tere mu ngi noonu lekk nekk di tàcc dañ ko fa daan tere waxumaa nag daan da ngay tëgg ko fecc moom loolu moom waxee su ko wala teg ay musique kon ñu jéem a fekk ba kër gi doon kër goo xam ne kërug lislaam la kër goo xam ne njàngum alquran lañ fay dégg kër goo xam ne waxtaanu qaala allah qaala rasul lañ koy dégg mbokk kër yi mel noonu la malaaka yërmaande yi di wàcc ci ñoom amma yépp kër yoo xam ne ay wax ju ñaaw ay jëf ju ñaaw seytaane yi ñoom ñooy fees kër googee fitna mooy nekk ci seen biir xol même bu ñu nekkee dans un palais en or seen xol du neex seen xol du féex amma bépp kër goo xam ne nii këru yërmande la même bu ñu nekkoon ci ay sàkket nekk ci ay lalu tagar yàlla subhanahu wa taala day bànneexal seen xol may leen la nga xam ne ni moom mooy ak dal loolee la jullit war a bàyyi xel ci kémtaleel kattanam heure boo xamee ne nii ñu ngi nekk di yar ak njaboot ay yéen mbokk jullit war ngay peese foo mën a toll lii di diggante àdduna ak alaxira bi ñuy mujj a taxaw ak yéen fii ci xutba ñu ngi doon fàttali soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi def ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci góoru jullit ñi mooy ki gën ci njabootam man nag maa gën ci sama njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la gëne woon ci njabootam ndax njaboot la goo xam ne nii dañ doon tëdd ci ay lal yu jar ay million ndax njaboot la goo xam ne ay ganaar lañ doon añu di ko reere la wallahi njaboot la goo xam ne daa nañ toog deux mois cin du tàkk ci kër gi njaboot la goo xam ne nii amuñ woon benn taar benn luxe ci seen néeg ya bal néeg yi ay néeg yu xat la ba ko mel ne ibnu musayyib di imaam bu bokkoon ci imaam yu jëkk ya fekke woon jamono taabiin ba ñu toj kër yonent bi mu ne amul lu ma gën a naqari kër yonent bi ñu toj dañ ko waroon a bàyyi mu nekk musée ba génération yi di ñëw yépp xam yonent yàlla bi ci yenn condition lu doon dundee loolee mbokk mi ngi noonu kon la taxoon mu gën ci njabootam mooy njaboot la goo xam ne da doon toog ak ñoom di leen jàngal aaye borom bi njaboot la goo xam ne heure bu gisee ci ñoom lu safaanoog ngërëmal yàlla mu jajji leen delloo leen gannaaw heure boo xamee ne sàggan nañ mu jajji leen daan leen yee xaaju guddi ñuy naafila loolee mbokk mooy la nga xam ne gën nga nga gën sa njaboot amma dundug àdduna dafa nekk dund gu gàtt dund goo xam ne tekkiwul dara amma alaxira yow soxna si nga xam ne nii taar nga bëgg na am yàlla mu leen ko binde soxna yeneen bi ñëw nañ ci yeneen bi alayhi salaam fekk yàlla def na ko daanaka mu ne ko buur dañoo bëgg nga may ñu ci taaru àdduna bi suñu borom wàcc aaya yu ñuy jàng bi ilaa yumi din ay yéen soxna yeneen bi su dee taaru àdduna ngeen bëgg kaay leen lu ngeen bëgg wax leen ma dox leen te ma bàyyi leen bàyyi gu rafet su dee nag ngërëmul yàlla ngeen bëgg ak alaxira mu ni leen condition yi sama yonent bi di dundee la leen di xaar ci àllaaxira day mi ngi ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jigéeni jullit yi dugg aljanna couronne ba yàlla de teg yéen a gis ren ay ren yi nag Angleterre yooyu am na lu ñu teg seen bopp muy genre mbaxane bi ñuy teg seen bopp nee na valeur am moo ëpp mboolemu trésor yi nekk ci kaw suuf benn la muy teg ci boppam rek moo ko ëpp valeur la nga xam ne moo leen fee xaar ci taar ak la nga xam ne moo leen fee xaar ci ak nguur loolee nekk ne mbir boo xam ne mbir bu màgg la lii nag mooy war a nekk objectif numéro un ci jullit ci famille am mooy sama famille lan mooy sama jubluwaay ak ñoom tey da ngay gis ñi dañuy changé ñi dëkk fii ba mu neex leen ñu changé ñu ngi dëkk Almadi am na ñoo xam ne sax dañuy far seen njaboot dañoo yéene ñu nekk américain soo ambee yàgg sa soxla nga dem ca Amérique mu amee fa doom ngir nga am ay kayitu américain waa yow mbokk jullit dëgg dëgg dëgg su objectif bi gën a réy ci sa njaboot mooy naka laay def ba maag sa njaboot gi nekk ay dëkkandoo ci àjjana yàlla yàlla defal na ko lii mooy su objectif bi gën a réy dundug àdduna lu gàtt la dundug àdduna lu néew la amma allaaxira moom du jeex ba faw léegi déglu leen suñu borom jalla waala borom boobu subhaanahu wa taala mu ne jannaatu adnin yadxuluunaha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار nee na day jullit ñi bu ñu duggee àjjana yàlla dana leen boole ak seeni soxna yàlla boole leen ak seeni njaboot ya malaaka yi di dugg ci ñoom ci bunt bu nekk di leen nuyu di leen wax jàmm ñeen na leen ci muñ gi ngeen mënoon bi ma sabartum mbokk àddina ku ko bëgg fokk nga muñ bànneexu àdduna bari na jaamu yàlla ci jamono ji dund jafe na heure boo bëggee teg sa njaboot ci sunna dañ naan da ngaa def da ngaa ëppal da ngaa nangam lu ne daañ la ko taxé la yonent bi alayhi salaam moo nekk islaam commencé woon na tumuranke dana mujj tumuranke kon fokk nga doon aji muñ la nga xam ne mooy critique muñ sa bakkan ndax yaa ngi am combat ak seytaan combat ak nafiq yi combat ak jullit ñi nga xam ne feebar dafa nekk seen xol combat ak sa bànneexu bakkan loolu lépp ngay muñ pour réussir moo tax borom bi ne leen bima sabartum ay yéen bàyyi li ngeen muñoon ay yéen soxna yi li ngeen muñoon ay yéen njaboot gi li ngeen muñoon lii mbokk mooy tax ñu am réussite bu leen di yàlla boole ci la nga xam ne mooy àjjana ya loolu it mu lay wan ne xatta yow njaboot googee sa sa rôle bi gën a màgg ci famille boobee mooy xamal na sa jéego yi gën a rëy mooy sa way jur yooyee nga xam ne ñoo la waajaloon sa terrain ñoo la dalal waajur yooyu moo ñoom nga war a gën a rafetal ci mboolem sa dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waay ñëw na ci moom ne ko àdduna koo may wax ma gën koo fonk ci àdduna mu ne ko ah xanaa sa yaay mu ne ko gannaaw ba mu ne ah xanaa sa yaay gannaaw ba xanaa sa yaay te ñeenteel mu ne ko xanaa sa baay mbokk sa imam sa sëriñ sa professeur général d'armée ku mu mën a doon ci kaw suuf ka nga war a gën a jox cër ka nga war a gën a màggal mooy la nga xamee ni ni moom mooy say waajur xanaa lu dul la ñu waxoon te soxna ya nga xam ne seeni borom kër la ñu war a jiital ci priorité boobu mbokk borom boobu subhaanahu wa taala adduna bëri na ay classe ku nekk foo toll yaa ngi bëgg a avancé noo nit la ñu yàlla defare la ajjana mu nekk téeméeri daraja daraja bu nekk ak moroomam mi ngi mel ne asamaan ak suuf cent quatre-vingt-dix-neuf quatre-vingt-quinze ba première classe moom mooy firdawsil aala fa la yonent yi ak siddiqiin yi ak suhadaa yi di dëkk yonent bi sunu borom jalla wa ala mu ne walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min cheyin kullu imriin bi ma kasabat rahim ma kasaba rahim suñu borom nee na ñi nga xam ne dañoo gëmoon seen njaboot topp leen ca ngëm googee allaaxira yàlla day xool famille bi bàyyi soxna yi yaay yi ana ko ëpp daraja ci kaw aljana su ko defee tey bu ñu xamoon masalan am na kenn ci njaboot gi koo xam ne liggéeyam yóbbu na ko firdawsil aala bàyyee ñee nga cinquante yeneen doom yaa nga trente ñee nga vingt ñee nga nangam suñu borom ne ngir teral sama jaam bële day mboolem njabootam yëkkati leen ngeen yóbbu leen ñoom it firdawsil aala loolu muy wane ne kon dara gunta nekk ab taxawaay dara gunta nekk jubluwaay yéen ñi nga xam ne yàlla da leen a boole ci famille ngeen di dénkente lu baax di terante lu bon di jàppalante ci ak jaamu yàlla lépp loo xam ne nii gis nañ ne li daa safaanoog mooy ak ak merum yàlla képp ci ñoom taxaw ci kanamu moroomam ba fexe loolu mën koo def lii mbokk mooy réussite bi gën a réy ci réussite yi yal na yàlla jàppale ñu ko mboolem suñu famille yal na ko yàlla def famille islam yal nañu yàlla booleel ci jaamam yi ko jébbaloon jaamam yi koy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara jaamam yi ko ragal te duñ ko nekk di ko moy yal nañu yàlla jéggal la nga xam ne mooy suñu rëcc rëcc yal nañu yàlla defal àddina muy suñu wàccuwaay defal ko suñu njaboot ak suñu wéyjur defal ko mboolem mboolemu julit ni allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin